mu ngoog benn ponk dong lay doon ñu fas yéene ci ànd ak Abdoulaye Bob Abdoulaye Bob naaf yow. Jokka njël yal mbin mexe meen. mbaa yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah. Ah, ana mango mango <laughs> log muuñ. <laughs> log muuñ a nga fa logo mu jox. xam naa bu ma dematee dëkk ba. logo mu jox dëkk ba war nga koo indil ah. <laughs> am na solo loolu waay. ayca Abdoulaye mu mel ni nag yegg si nañu ci li gën a fës ci bopp yenn kaay yu ñu xëyandoo tey ji dañ koy tàmbale ak Walfadjri quotidien. mangoog Walf quotidien xëy duñu dégtal ay kaddu Ousmane Sonko premier ministre njiital Pastef saay bu waxee ca mbooloo wax lu waxul wala bëgg wax ba takk boppam yenn cabinet juumati na ci ay kaddu yamu jot a yëkkati keroog ca ca euh, euh, Grand Théâtre yëkk lu mel ne xeme euh, taskatu xibaar yi maanaam dankafu métiem tasum xibaar ak itamit daal di dal ci magistrat yi dal itamit ci ñi nga xamante ne ñooy opposition bi yéen a bi Walf Quotidien bari na ca la muy juum ci mbooloo moom Ousmane Sonko saay bu yëkkatee doom mu ngi ci biir yéen kaay bi. ñu ñëw ci le mandat yéen kaay. le mandat mu ngi ñuy dégtal confrance publique googu nga xamante ne Ousmane Sonko daanaka dafa dal dankafu presse bi a opposition bi ci politique bi ñu ngi ne tekk euh, doon xool nguur geek ndorteelam waaye nag ci euh, ja ci saa la Ousmane Sonko xam le ne ku jeeg politique bi tekkiwuñu dara te lenn mënut a tax euh, du ñu liggéey ci mim réew yéen kaabi di le mandat ne opposition ba doon nelaw Ousmane Sonko moo leen mujjee yee. Sud Quotidien Sud Quotidien mu ngi ñuy dégtal ay kaddu Ousmane Sonko taxaw seetlu la def jox kaddu gi ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na jëm ci wàllu communication professeur Moussa Diaw bu UGB xam le ne Sonko na mu waxee waxu na bokk na ci amul benn jafe-jafe boo xamante ne am na ci euh, communication amul gàllankoor ndax la ne woon ca xolam moom la wax moom Ousmane Sonko mel ni euh, kuy tontu euh, ña koy dingat Abdoulaye Mbow di taskatu xibaar am ci taxaw seetlu ne Sonko na mu waxee daanaka rafetul ne bu sañoon mu xoolaat ay kàddoom saay bu ko yëkkati di ko jëmale ci askanu euh, Sénégal. ñu ñëw ci tribune yéene kaay. maa ngi Sonko moom euh, jeexal na takk état de grâce ba maanaam boolu muñukaayu askan wa euh, tàmbale na ko tàmbale na fees te ausman Sonko moo ko feesal del ba tax na coow li tàmbale Bougane Gueye Dany jàpp ne réew mi daanaka dafay joomaay bu ñu deful ndànk ci fay ci ay loxo Ousmane Sonko la jëm moom Sonko mile dafa war a jublu ci soxlay askan wi Thierno Bocoum moo ni waxee jàpp ne am na lu ko doy di jafe-jafe këtt ne jonn te tabaski gaa ngi yëg si mbéy mi daanaka tagatembe leneen ak leneen laaj saafara te ba léegi ñu ngi ci ay séntu eh, ki nga xamante ne eh, mooy eh, Ousmane Sonko première ministre kii di Moundiaye Cissé bu ONG 3D xam de ne la Senghor amutoon ci presse bi Abdou Diouf amutoon ci presse bi ba ci Abdoulaye Wade ak Macky Sall du Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko ñoo koy am tey ci presse bu Sénégal mu ngi ci yéen a yi di Turbine Eh, yenn kaay bi di critique moom itam lan la fasal ci xetam wu njëkk. ma ngoog eh, critique moom ñuy jàngatal li nga xamante ne mooy ndaje mu yaatu sommet eh, ci jëm ci état bi bokk na ci Ousmane Sonko mi doon premier ministre waaye nag mel na ni sax mooy njiitu réew te moo ne de ki nga xamante ne mooy Bassirou joomaay fay moom la askan wi woteel keroog ci mbañ nga ci ga yenn kaay bi jàpp ne doxalin gi ni bu dakkul mun naa jur ba jur jafe-jafe ci tolluwaay ak ëllëgu Sénégal. l'évidence l'évidence ci wàllu di nga xamante mooy li jàmp te nguur gi wàccee taxaw euh, ci waxtu joo xamante ne jafe-jafe tar nañu góorgóorlu yi daanaka am xar jafe leen lool yéen cabinet projet gañu doon euh, dégtal askan wi nañ ko jëfee ci terrain bi ñëpp mun ko gis bu ñu sukkandikoo euh, ci li nga xamante ne mooy l'évidence mu ngi ci xëtam bu njëkk. ñu ñëw ci l'info yéen kaay. l'info ñu dégtal ay kàddu Anta Babacar Ngom dal na ci Ousmane Sonko jàpp ne na mu waxee rafetul nu Bocoum yi tamit gis na Ousmane Sonko liggéey ca lañ koy séntu waaye du wax bokk na ci Abdou Mbow yi tamit bu APR jota dànkaafu Ousmane Sonko ba ci Pape Malick Ndour kenn ku ne ci ñoom yëkkati na ay kàddu xamle ne njiital Pastef dafa juum ci ay kàddoom Cheikh Thioro Mbacké dellu soit na tamit uh, addu ci li nga xamante ne mooy uh, tolluwaayu réew mi uh, moom mi bokk ci Pastef doon député ci assemblée nationale. source a lan la fasal ci xëtamu. yéen kaa bi di source a El bi tey mu ngi ñuy dégtal lu ci Ousmane Sonko kaddu yamu yëkkati keroog ca grand. grand théâtre jëm sax boo xam ne ne Alassane Fall bu parti Pastef euh, mi yekk lu mel ne xeme magistrat yi taxoon yoon war ko waroon koo déglu jëru gi ñu dénk wàllub yoon euh, fa bon vidéo ba yónnee ko Ousmane Sonko ngir laaj ko lu mu ca xam ak lu ñu ca war a dogal yéen cabinet la mu waxtaan ak jëru gi ñu dénk wàllub yoon moom Ousmane Sonko la teg keroog ca penc ma yéen cabinet li ni mel mun naa jural jafe-jafe jëru gi ñu dénk yoon daanaka lañ ko dénk sax attanu ko munu ko nañ ko fi jële euh, docteur Mbaye nii mu ngi ci yéen a bi di euh, Source A. ñu ñëw ci bés bi le jour. bés bi le jour mu ngi ñuy dégtal euh, ndorteel misil yi daanaka am na ñu yëkkati seen kàddu jëmale ko ci premier ministre Ousmane Sonko Birame Seck bu forum euh, bu forum civil jàpp ne premier ministre liggéeyam mooy fexe ba xool naka lay saafara jafe-jafe askat wi ak dëgëral digganteem ak presse bi ay Eliman Kan wax na tamit jàpp ne nañu fexe ba Ousmane Sonko mu nar a taxal digganteem ak presse bi ndax presse bi Euh, presse bu Sénégal Moundiaye Cissé ONG 3D jàpp ne du presse bi tey jii lay sëngëm euh, ci kanamu nguurug Bassirou Diomaye fay euh, ndax nguurug Senghor amu ko woon nguurug Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf ba ci Macky Sall amuñu ko woon Anta Babacar Ngom yi tamit dal na ci premier ministre Ousmane Sonko. las yéene kay las El Hadji bi tey moom ñu ñuy dégtal ëllëgu Khalifa Babacar Sall moom moo jar a ci jamono ji gana ba mu laajee ci élection présidentielle ñu jógee te mu ngi delluwaat kër maam maanaam ca parti socialiste am déet ban tànk la war a jiital ci géew euh, politique bi. yor yor yéen kay. yor yor bi mu ngi ñuy ay kaddu yu tukkee ci ñu bari ci askan wi rawatina géew politique bi dal ne opposition bi wax dong moo leen dese waaye nag Ousmane Sonko waxul lu ay waxul lu jur jafe-jafe la ne ci réew meeg tolluwaay gi moom la euh, wax la mu wax xel mun na koo nangu bu ñu sukkandikoo ci Ayib Daffé ay kàddoom ci yor-yor bi. bi. ñu ñëw ci le soleil yéene kaay. le soleil mu ngi ñuy dégtal euh, immigration clandestine Barça wala Barsax ba léegi mbëkk mi euh, jóge gu fa euh, Kafountine ma OIM wax ne lim bu takku ci ay gaal ñu ngi fay bawoo rawatina ca Fass Boy wutali tugal ngir itamit am li nga xamante ne mooy wàllu koom yéene kaay ba léegi mbëkk mi daal jeexagul ci mim réew. réew mi yéene kaay mi yéene kaay ne bëgg nañu ñu jeexal jëflante gi ndax Israël moom ci jamono ji fi ci ambassadeur am bi ne fii ci Sénégal gis ne dañ ko fee war a jëlee ay kuréel yu euh, société civile ñoo dànkaafu njiitu réew mi euh, président Bassirou Diomaye Faye ngir mu mun caa jël ay dogal ca na mu gën a gaawee. Dakar Times. Dakar Times mu ngi nuy dégtal lu waaju ci wàllu Sénégal digganteem ak euh, Mauritanie lëkkaloo gi jëm ci wàllu koom mu soxal wàllu pétrole ak mi fës ci suñu frontières yi la. 24 heures. 24 heures mu ngi ñuy dégtal ay frontières ouest africaine jëm ci tamit nees mun a def ba dem beeg dikk bi mun a jàppandi. di askan wi itamit ñu bañ a salfaañe seen ak ak yelleef yéenekaay bi moo ñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk Cheikh Thioro Mbacké mu ngi sàkku itamit ci li nga xamante ne mooy koppar yi war a jëm ci wàllu CAN beeg 2023 jàpp mondial 2022 gi weesu nañ ko càmbar teg ko ci taabal ji xool nañ ca doxale naka la demee bu ñu sukkandikoo ci député bu Pastef. noonu la ñuy dal xese ci stade yéenekaay. défense centrale bu gaynde yi Abdoulaye Seck fës na ca lool moom la yéenekaay bi di Eh, kan mooy Abdoulaye Seck mu ngi ci yéenekaay bi di eh, stade. mu mel ni kon eh, fii la ñuy yem wala dañuy dem tegee ko ak suñu lamb. ma goog amateurs yi fas yéene jeexal saison lamb ji ak mbégte fanweeri fan ci weeru juin Ama Baldé Gris Bordeaux Ada Fass guy gi yéenekaay bi moo ñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk saison bu nar a neex bu ñu sukkandikoo ci suñu làmb fii la ñu fas yéene tàggatoo ko askan wi tënk la woon nag ci xëtu yéenekaay dañ ci dikkaat ji leen ko ca na mu gën a yaatoo ci xibaaru digg